waaw euh, nee nañ Boubacar Dieng mu ngi ci ligne bi Boubacar yaa ngi may dégg Boubacar Dieng. waaw. waaw Sud euh, nan la mbir mi tëddee foofu. waaw Yeumbeul Sud nag euh, ñu ngi nii door a jege fi nga xam ne nag moo di centre Serigne Ababacar si annexe foofu nag fi la ki nga xam ne nag moo di Amadou Hott voté wante dañ koy dooree si li nga xam ne nag moo di bureau un bi donc vote concernant la commune. Pour vous rappeler, concernant le vote communal, la coalition Ande-Naule-Soukhali-Sounou-Gogh a amené 5 voix sur bureau 1B. Donc, Yéhu Askanwi a 109 voix, Bernobo 114 voix, Sénégal 11 voix, 5 voix. Maintenant, concernant le département, toujours sur bureau 1 b And naule soukhali sounou a 7 voix, Bernobo Kouyakar a 104 Yéhu Ascanoui, am 106 Wallou sénégal 13 gëm 5 coalition citoyenne buntu am 6 bu bureau de euh, concernant la commune donc euh, ànd nawle su xoli sunu gox 9 yeewi ascanoui 113 Benobok-Yakar, 117 gëm 2 Wallou sénégal 13 coalition citoyenne buntu Mom néant donc euh, amuñu foofu dara ñu si département coalition ànd nawle su xoli sunu gox 7 yeewi askan am 100 Benno Bokk Yaakaar am 110 Gëm sa bopp am 3 voix Wallu Sénégal am 14 coalition citoyenne buntu bi am fa 8 voix ñu dem si bureau 3 bi tamit bi yoon si wàllum commune bi ànd nawle su xoli sunu gox am 6 Yewwi Askan Wi 109 Benno Bokk Yaakaar 120 Gëm sa bopp 6 Wallu Sénégal 10 ñu dem si département bi toujours bureau 3 ànd nawle am 3 voix Benno Bokk Yaakaar 119 Gumsabopou, 2 voix, Walou Sénégal, 9. Yewi Afganwi, 108. Coalition citoyenne Bountoubi, en fait 10 voix. Nous sommes sur le bureau 4B concernant cette fois le département. Coalition citoyenne Bountoubi, on a 3 voix. Andenaoulé, on 4 voix. Beno Bokyatar, 117. Yewi Afganwi, 97. Gumsabopou, Bopo, 3 voix. Walou Sénégal, 16. Concernant la commune, toujours sur le bureau 4B. Andenaoulé, Sokholi Sounougor, on 7 voix. Ben Yakar 111 Gomsebo pour 4 voix Walou Sénégal 11 Yéhu Askan Wi am 98 voix Si bureau 5 b concernant la commune 568 ont pas inscrire 220 n'ont voté donc euh, deux hors bureau maintenant si vote yooyu nag ñi nga ñoo di 7 voix Ben Bok 105 Walou Sénégal 5 voix comme sa 4 voix Yehu Askan 99 voix concernant le département, donc si bureau Bob Mohlegi, André Naoulé, Amnanyou, 9 voix, Berno Bokyakar, 95, walou Sénégal, 5 voix, ce 2 voix, Yehu Afkanwi, 99, Buntubi, Am, 10 voix, sur le Bureau 6, puis avant-dernier bureau B, Pofle Siwalu Komenbi, André Naoulé, Sokole Sénégal, Am, 6 voix, Berno Bokyakar, Am, 114, Yehu Afkanwi, 100, ce 2, walou Sénégal, Am, 16, le département de Bionne, André Naoulet, amna 5 voix. Benno Bok Yakar, 115. Yehu Afkanoui, 100. Walou Sénégal, 11. Gomse Bopou, 2. Coalition citoyenne Buntubi, Amponat, 5 voix. Nous sommes le bureau Moudjibnak, Bureau 7, Antoine. Khamkanak, Linga Khamni, Modi, ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Di Amadou Orte, pour le voter, donne sérieux prétendant. Si Linga Khamni, Nak, maire actuellement, du moom nga xam ne nag mu ngi voté ci benn école bi nga xam ne Babacar Fall fa la nekk ci bureau bi nga xam ne nag Amadou Hott fa la voté jàpp leen ni ñi nga xam ne nag ñoo di waa coalition benn Bokk Yaakaar am nañu cent vingt et une voix ànd nawle suxali suñu gox am na six voix yeewi askan wi cent quatorze wàllu Sénégal am na cinq voix gëm sa bopp am na cinq voix ci département bi yoon gëm sa bopp am trois voix yeewi askan wi cent treize Benno Bokk Yaakaar cent dix ànd nawle suxali suñu gox am li nga xam ne moo di quatre voix wàllu Sénégal cinq coalition citoyenne bunt bi am li nga xam ne nag moo di onze voix donc Antoine lii mooy résultat yi nga xam ne nag am na fii ci centre Serigne Ababacar Sy annexe bu nekk fii ci commune bu Yeumbeul Sud te ni ma ko waxee sànq fi nga xam ne nag moo di bureau de vote numéro sept bi fa la Amadou te mën nañoo jàpp ni centre bi nag dafa am ballottage muy ci wàllum commune bi di ci wàllum département parce que boo xoolee muy coalition Yewwi Askan Wi ak ñi nga xam ne nag ñoo di waa benn Bokk Yaakaar ñoom seen voix souvent li muy différencier euh, différence bi ay dix voix lay doon cinq voix wala six donc ballottage dañu mën a la ñu nemmeeku fii nga xam ne nag moo di commune bu Yeumbeul Sud concernant li nga xam nag mooy deux grandes coalitions di benn bokk yaakaar ak yeewu askan wi d' accord merci Boubacar Dieng ci résultat yooyu ñu delluwaat rek euh, ci plateau bi euh, professeur Maurice Soudieck Dione boo doon def ab lecture ci résultat yi nga euh, jot a dégg ak tendance yi dessiné wu lan nga mën a wax waaw damay gis ne am na des percées significatives de l' opposition mm-hmm. surtout maanaam surtout yeewu yi askan wi ci ville yi ci ville yu mag yu euh, Dakar ak euh, guédiaway mais aussi dañu euh, peut-être Thiès aussi xëy na dinañ si dellu si mm-hmm. mais dañu noter aussi un certain ancrage maanaam benn mbokk yaakaar mi quand même contrôlé il euh, y yenn une euh, yi notamment dans l'intérieur du pays wax nañ à propos des résultats au niveau de Ndiaganiao par mm-hmm. exemple donc il faut na y ait une logique yu fay am y ait un leader yoo xam ne am ancrage euh, ancrage local mm-hmm. ñi ngi fay liggéey et puis aussi xëy na askan bi jox na leen baat mm-hmm. mais li gën a am solo mooy percer opposition bi dafa war a dafa une percée symbolique c'est-à-dire que day wane né dans les grandes villes opposition bi euh, mi mingi mi def ay euh, mingi def ay jéego te jéego yoyu mën nañ ko jangat comme euh, une forme de contestation du pouvoir, c'est-à-dire une, une, forme de positionnement euh, face au régime en place defe lu am mhm. donc dina tax ñu euh, peut-être Sénégal dafa une ci phase de transition dañu y ci période Benno Bokk majorité. Mhm. pratiquement au niveau de l'Assemblée au niveau. de la plupart des collectivités territoriales mais l'Église loolu mi changé la euh, transition bobu nak ci la nek euh ñu gis ko au niveau de la paix et au niveau de Benno Bok Yaakaar comme au niveau de l'opposition donc nañu fexe boo euh, accompagner mouvement euh mu nek un mouvement qui va se faire euh, dans la douceur et non pas dans la violence. Très bien Malik laata ma lay jox kaddu gi dañuy jël résultat Grand Yoff et puis nous connaît commentaire tendance Mohamed Kandji mu ngi ci ligne bi Mohamed.